jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé taxaw jigéen taxaw na Comme euh, sunuy mbokki auditeurs ak auditrices yu banlieue FM la première radio digitale kaddu gi di bayiko fi ci euh, également des mbokku téléspectateurs des internautes qui nous suivre sur Facebook et YouTube avec Golbert Média euh, comme ni ngeen ko troisième édition jigen ak jamono ni nous ñu gisé tay nak ngeen xamné nak bureau yi ñu ngi dem ci ñew nag and seeg euh, soxna Korka Jaw euh, Korka na nga def yaangi ngi si jàmm baax <laughs> ah Korka di jigen ju mën gor tubaar fakàlla macha allah ñu ñew tay fekk ci la ci tol yi ngay jigenu baykat nga ràññeeku lol ci rewmi ak li wër rewmi machallah Euh, ñu bëggoon nag nga wax ñu tuuti ci sa bopp te nga wax nu itamit foo juddoo. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen euh, massaw ndax fii àll la mu nekk premier weeru koor ngeen mën a génne bureau yi ñoo fekk suñu fii dañu am kontaan bu baax ndax euh, ku nekk xam ne tool moom ku ko tudd rek àll ngay wax man maa ngi tudd Korka ñu may wax sax Korka Raïs ndax si ceeb bi la ñu gën a xam Korka Raïs man maa ngi bokk Matam mhm. yaroo nag Richard-Toll richard laa def sama carrière yi fa yaroo ànd ak samay waajur yaru foofu euh, ba léegi maa ngi Richard-Toll waaw di nekk béykat mhm. nekk leader de femme euh, jiite ay réseau de femmes réseau de femmes agricultrices du nord muy Refane plus mhm. de 16000 membre national la mais suñu intervention du dafa gën a bare ndar ba Bakel moo tax ñooy réseau bi ndar la ba Bakel façon liggéey jigéen bu nekk na mu ngi si mbéy maraîchage comme fu ma nekk tey mbéyum ceeb transformation ñuy yar ay ay ay jur ñuy def euh, commerce loolu yëpp si biir réseau bi la nekk. lépp ci biir réseau bi la nekk waaw man nag sama entreprise mu ngi tudd GIE Malheureux Guèye kooku moo ma yar moom laa tuddee sama sama entreprise. Hmm. Euh, mooy Cork Rice kooku sama entreprise la man Cork waaw soxna Korka kañ nga dugg ci agriculture bi kañ nga dugg ci mbay mi maanaam ak euh, ba nga ciy dugg en tant que femme say jege ñaale say mbokk say àndandoo naka lañu gisee jigéen ju nekk ci mbay ak mën a yore waale këram. yombul woon na waaye sant naa yàlla sax ba nga ñëw fekk fu ma commencé woon dëkk bi ñuy wax pax. Mm-hmm. fii laa commencé sama activité fii mooy suuf bu ñu ma njëkk a may. ma ànd fekk euh, ñu am ñu baax ku mel ne Assane Faye ku mel ne Nderaw Diagne yal na leen yàlla yërëm ñu fii lañ ma njëkk a may trante hectares yu ma toog te mu nekkoon nag lu jafe sax am suuf jafe woon na lool ñu àndoon nag suñu président comité rural Ablaye Diop yàlla na ko yàlla yërëm mu xam jigéen bu baax jàppale jigéen moo tax tey su ma fi toogoon su ma nekkoon tey jawel fële di wax foog ma indiwaat histoire bu baax yàlla dimbali na ma nag tey ngeen ñëw fekk ma ma toog fi si pax mm-hmm. euh, yombul woon ndax boobu xale la 91 laa commencé di bay maa ngi ànd ak samay doom ànd ak sama wujj mm-hmm. ànd ak sama borom kër te xam nga boobu du tey mm-hmm. <laughs> léegi nag xam nga pour génn su ngay dem bay barewul jigéen ñuy bay moo tax mooy ñaan suuf sax dañ ne moom dangay ñaan suuf rek pour ñu may la ko waaye jigéen su suñu ko mayee suuf barewul sax lu mu koy bay man ko man may leen ma suuf rek ma bayee. mayee daal man dinaa def lu ma mën boobu nag commerce laa doon def man ma teel a euh, bëgg defar sama bopp am tuuti autonomie samay waajur sax dañ ma doon tere xale du jaay xale du kii du def activité waaye man sama bëgg-bëgg la rek xam nga boobu ñun tukulóor dañ lay wax ne sax xale bu mu bari lu muy def activité yu bari waaye boobu sa bëgg-bëgg la fii la ñu ma njëkk a mayee suuf. macha allah comme euh, ni ma déggee nii donc ci commerce nga. tàmbali tàmbali waaw jaayum fruits et légumes. jaayum firir sax man kay lu ma def. Ah, commerce rek daal ay fëgg ay fëgg jaay. Ah, ay <laughs> jaay naa daal lu bari. <laughs> waaw noonu la <laughs> jigéen wu nanguwul toog rek. waaw waaw waaw ku wax mbay nag. wax ci suuf. Mm-hmm. te suuf xam na ne euh, lu lu bëri problème la. si mm-hmm. vallée bi. Mm-hmm. ndax jigéen ñi ñu ngi jot ci suuf si. waaw suuf de soo waxee mbéy foog nga tudd nga tudd suuf may njëkkee sax di gërëm sama aaw buuru këram bu baax ndax moo ma dimbale si sama téye sama doom yi ak sama doom yi ak sama borom kër Ama Ndiaye maa ngi koy sant bu baax ndax yombul woon suuf bu ñu suuf dafa am ñaari facteurs yu indi jafe-jafe jigéen ndax bu njëkk xëy na jigéen dañu xamul woon sax na nañu droit comme góor yi te yàlla def na loi bi dafa ne góor ak jigéen ñëpp ñoo ñoo yem si suuf. fépp foo gis koo xam ne kenn moomu ko nga nga nga demandé ko am nga droit jot suuf soosu waaye est-ce que information bi jàlloon na bu baax. est-ce que jigéen yi xamoon nañu boobu waroon nañ jot suuf buñ koy buñ koy xam tey dafa fekk suuf tey bu jege ndox jafe na suuf bu neex a aménagé tey jafe na jot suuf sax jafe na ndax suuf bi 91 laa ko jotoon xam nga 91 ak tey. yàgg na waaw euh, fële sama fi may def ceeb foofu maa ngi ko jotoon euh, euh, soixante dix soixante dix neuf quatre vingt dix neuf kon nga xam ne am suuf boobu yombul woon waaye boobee jigéen it jubluwuñu foon te lu ñu gënoon am jafe-jafe mooy soo ñëwoon tey comité rural benn conseiller nga fay fekk bu jigéen boobu parité amul benn conseiller bu jigéen su bëggoon jàppale jigéen ñi sax si demande bu ñu def yow doo am ku la jàppal ndax ay góor ñoo fa ne benn jigéen moo fa ne tey nag parité am na sant nañ si yàlla gërëm nañ président bu baax bu parité amee dañ jafe-jafe warul turonoon bari su suuf desoon de na suufee doo toog rek ba ñu la suuf baa ngi da ngay def sa demande soo defee demande nga topp nga topp ba nga xam yow lu tax amoo suuf lu ban facteur lu tax ñu ne la bu mënoo am suuf lu tax wala fi nga demande woon dafa am ko ko moom wala yow jigéen nga moo tax jox ñu suuf nga mën a wax waaye su fekkee yow defoo demande. Hmm. yaa ngi toog dana aw ma suuf aw ma suuf wala soo defee demande toppaloo ko ba xam yow lu tax lu la lu tax nga lu tax ñu xañ la suuf. Hmm. loolu dafay am jafe-jafe. waaye yow mii nga xam ne laañ nga parité ba ñu jotee parité. Hmm. jigéen yooyu toog si commune yi. ñoomee dañu war a xeexal jigéen. ndax loolu moo tax ñu toog foofu bépp jigéen ñuy ñuy ñuy nemmeeku. su suñu délibéré suuf si ñuy nemmeeku tey ñu ngi joxe suuf est-ce que jigéen yi seen demande ñu yëgal jigéen yi def leen seen demande. ndax ñun du suufu tool rek lañ soxla. Mm. dëkkuwaay soxla nañ ko. Mm-hmm. def suñu poulailler def suñu ferme jën yéeg yëpp soxla nañ ko loolu yëpp dañ koy ñaan pour ñu may la ko. Mm-hmm. waaye conseillère bi fa toog moom it na xam ne lu ko fa teg mooy mu jàppale jigéen bi pour jafe-jafe mu mu jafe-jafe bu ñu am pour am suuf. mën mm-hmm. a am accès à waaye nag du la yomb. waaw ah, loolu moom des na moom parce que ba léegi jigéen ñi danoo am jafe-jafe pour jot ci suuf si. dañu am jafe-jafe bu baaxa baax pour jot ci souf ci waaw bu ñuy wax ci euh, mbay aussi dinañu wax jumtukaayu mbay ndax euh, mbay dafa and ak jumtukaay bay bokul ak mbay bu njëkk ba nga xamanteni ni loxo mo daan bay ay gop ak ay hilaire tay tubar fakal la ay jumtukaay yu xereñ yoo xamanteni ni moom la ñuy muy manam ay tracteur ay moissonneuse batteuse lool lan nga ci xalaat wa tay xam nga mbay ak mbay bu tey nuróowul ak nuy doon béyee ay gopp ak yooyu tey mhm. danga mën a béy sax di di am sa GPS <coughs> mu toll ak nu mu mel xam nga loolu amul woon mhm. jumtukaay nag kannaaw bu nga waxee eh, mbéy ba pare wax ndox mhm. ak sa ak ndox mi ci ndox mi même ndox tey ñu jox la suuf boo xam ne dafa jege ndox ma mun si liggéey loolu sax jafe-jafe matériel agricole nag tey loolu moo mooy tax nga mun a liggéey lu bare ndax su fekkee jox nañ la tey même cinq hectares tey loxo mënu ko liggéey <laughs> léegi nag jumtukaay bi dafay commencé depuis tracteur bi <laughs> ba moto pompe ba comme que irrigation ngay def <laughs> su fekkee ceeb ngay def tracteur ba ba machineuse batteuse boo xam ne moo koy moo koy góob ba machine boo xam ne moo koy transformé pour nit ñi mun ko lekk loolu nag jigéen ñi wax dëgg yàlla def nañ si jéego bu mag wàllu transformation jigéen ñi def nañ si jéego bu mag ndax tey usines yi ñu wàññi daa gis ay chef d'entreprise yoo xam ne ay jigéen lañ mun nga si wàññi ñu bare soo ñëwee tey si machine euh, euh, kii euh, machine yu ndaw yi nga xam ne mooy moo gën a jege nit ñi si mhm. tara foofu jigéen ñi bare nañ soo ñëwee nag si wàllu tracteur ak machineuse batteuse mhm. foofu jigéen ñi bare wuñu foofu ndax man muy jar dafa cher mhm. ak tey ni ko defee dañu ne pour cent lañ si am fukk yu ne benn la si jigéen am fab ñu teg nag critère ndax soo amul suuf man ngay jote matériel ñun suñu bolokaas mu nga sa suuf si moo tax tey suuf si mooy problème euh, matériel agricole nee nañu am nañ si 10 pour cent nee nañu am aménagement public bu ñu def. Mhm. am nañ si 20 pour cent yoo xam ne dañ ko delloo jigéen mhm. ah ñu ngi xaar loolu nag ndax loolu bëgg nañ ko lool ndax bëgg nañ jigéen ñi su suuf suuf surtout am na jigéen yoo xam ne am hectare sax jafe na la. Mhm. am na jigéen yoo xam ne am moto pompe bu tuuti sax boo xam ne benn cylindre la jafe na nañu bëgg ñu jàppale. xëcc jigéen yooyu ba ñu taxaw. former leen. jox leen matériel agricole dimbale leen ñu am suuf. loolu moom wax dëgg suñu xeex yëpp foofu euh, bu ñuy waxee mbay ba tey ñu xel yëpp dem si euh, jàppale ndax euh, bu ñu waxee mbay daal xel yëpp dem ci sayet ndax encadrement bi ndax sayet mu ngi leen di encadrer normalement ak yow itam yan relation nga am ak société boobu. waaw waaw ñun de foofu dinaa fa sawar wax. ndax tey su may tuddee sama bopp ingénieur laa dafa fekk formé nañ ma formé nañ mi bu baax a baax ma ndax sayet moo ñu encadré soo ne mbay ngay tudd sayet moo ñu tey ba ñu egsi fii ci wàllu xam-xam soo toogee nga mun a irgel sa bopp nga mun a wax si wax si mbay rek dafa am dafa fekk dañ la forme société boobu daf ñu ñu forme bu baax baax jàppale ñu nag si wàllu aménagement ñoo yore aménagement yi ñoom ñooy tax nga mun a am aménagement su gannaaw bu nguur yi su ko tegee seen loxo ñoom ñooy séddale pour pour ñëpp foofu la dañu bëgg nañu gën a beral loxo jigéen ci mm-hmm. wàllu aménagement mais su mais moom am nañ si moom relation bu baax mm-hmm. jàppale nañu ak société yu ci nekk ku mel na Africa Rice comme mm-hmm. def wàllu ceeb semence lu mel na ISRA dañuy jàppale lu mel ne LBA banque LBA mooy suñu banque ndax boobu man 91 ak tey LBA laa njëkk a si banque yi muy banque bu jàppale jigéen ñi waaye nag affaire financement ak matériel agricole jigéen ñi am nañ fa bolokaas hmm. ndax soo xoolee tey euh, jigéen ñi ñu am matériel tuuti la tuuti jigéen ñu am matériel am na jigéen ñu amul matériel moom xamuñ sax fu ñu jaar bi am matériel hmm. dañuy wax nañu def demande soo defee demande nga nga teg ko fekk yow jox ñu affecté wuñ la matériel doo mën a am matériel matériel soo koy amee mayu ñu la ko soo waxee tey tracteur dañuy wax tracteur baa ngi jar trente millions hmm. ñu ne la man état bi ne man jox naa la si euh, soixante pour cent may naa la ko mais quarante pour cent bi yow foog nga fay loolu foog nga tudd banque. waaw soo amul nag accès si banque bi. am doo mun a am matériel. soo ne machine batteuse ñu ne la 80 millions lay jox ñu ne la léegi jox nañ la 60 pour cent bi yow yaa ko may nañ la ko. 40 mhm. pour cent pour cent bu des jigéen boo xam ne moom dooleem bariwul. Mhm. foog mu wuti banque boo xam ne moo ko koy fayal. Mhm. soo amul relation si banque yi. munoo am accès si matériel boobu. wala nga am sa bopp wala nga am ku lu ko fay. foofee dañu bëgg ñu gën a yombalal jigéen dañ leen jàppale foofu pour ñu mën a accès am accès si matériel bi. Hmm, ah, loolu moom dina ci baax bu ñu leen gënee jàppale si financement surtout ba ñu approché banque yi ñu mën a am ci matériel bi dina gën a ñoŋal seen liggéey. waa léegi yow comme si bu kiwee da ngay bay ceeb sa toolu ceeb ma nga wàllu wale fii nga ni mooy pax fii ngay defee maraîchage ay tomate fekk nañ fi ay tomate ay xaal ay concombre un peu de de toute euh, sorte de fruits de légumes euh, yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ak bay bi. Hmm, bay bi <laughs> jafe-jafe man fii euh, ferme bi PDIDAS moom ma ñooñu ko ñooñu ko financé. Mhm. ñoo ko aménagé def si goutte à goutte ferme goutte à ñoo tabax bâtiment bi nga gis ñoo collecté fi ferme PDIDAS. Mhm. jigéen ñi dañoo xam nañu postulé. jigéen yu bari poste la ñu am si presque lu de huit ferme yoo xam ne jigéen ñi ñoo ko moom lu des yi moom góor yi la des di xëy na poros bi tardé woon na tuuti yoo xam ne am na yoo xam ne mënul woon sot ñun jafe-jafe bu ñu gën a am ñun man surtout man fii mhm. maa ngi wax si sama poros waxaguma wax jigéen ñi mhm. man fu ma dëkk ak fii 30 kilomètres mhm. su ma xëyee fii laay yendu ba ngoon dem wala ma dem toolu ceeb bi xoola 30 kilomètres arrêt 30 kilomètres retour lu suuf suuf sax bu ñuy fekk joxe nañ ko kooku moom amul suuf sax ñuy wax ne gis nañ suuf joxuñu ñu fële moom dafa amul suuf kon nga man sama jafe-jafe boo gën a am mooy 30 kilomètres laay def pour ñëw sama tool. 30 kilomètres aller 30 kilomètres retour 60 kilomètres pour ñëw sa tool. soo defee soo paree loolu jafe-jafe booy gën a amaat. Hmm. mooy toujours ñu am problème jafe-jafe ndox. ndax ñun fii lac bi la ñuy gën a jege lag de Guiers. Hmm. lac de jege tey Euh, baraay yu yu yu branché si lag bi yëpp. dafay am euh, weer yoo xam ne pour am fa am fa ndox dafay xamante ne. day xaw a jafe jafe euh, beneen jafe-jafe bu ñu am mooy soo nee tool nga ne intrant. Mhm. intrant intrant tool du du lu yomb tey soo pour nga am intrant def ko si tool bi ba tool bi meññi nga mun koo mu mu mun a am tey résultat. Mhm. du lu du lu yomb kon loolu ba léegi dafay indiwaat financement. Mhm. dafay indiwaat financement ndax nu ñu fi créé si emploi. direct rek laa wax ñoo xam ne ñoom. direct rek lu bon bon bon vingt personnes ñu ngi si tool ñoo xam ne direct la ñoom. Mhm. indirect tey soo fekkoon démb bu ñu dindi tamaate yeeg di witte oto taxaw di ko yóbbu. Mhm. tey lu bon bon daa fekk soixante. nit yoo xam ne personnes yoo xam ne diggante borom sareet ak ñi génnee kees ak ñi witte yi daa leen fi fekk. Mhm. kon nga xam ne euh, du lu yomb. créé nga emploi da koy fay salaire par weer. créé nga joge nga sa kër ñëw nga fi. kon lu lay kii soo manqué dara rek da ngay da ngay da ngay am jafe-jafe soo manqué dara rek da ngay am da ngay am jafe-jafe moo tax mbéy muy góor ak jigéen yëpp du mbéy yombul mbéy yombul moom mais yàlla nag moo ko barke ndax moom rek ngay jox benn mu jox la fukk dëgg la moom rek ngay jox benn mu jox la fukk te moom rek tey moom mun a dindi état euh, réew mi tey fu mu toll tey pour ñu dundal suñu bopp mhm. mbéy rek lañ moo nañu dañ mën a war a dellu si suuf si rek ñu béy mhm. mu nekk béy mbéy bu am solo ndax mbéyet du mbéy naa rek jëmbal naa tamaate bi rek déedéet dafay nekk béy boo xam ne bu am solo boo xam dina génne rendement boo xam ne dina mën a dina dina mën a dundal yow mi nga xam ne yaa ko moom. nga mën ci am leneen ñeneen mën a loolu moom am na solo euh, si mbay mi noonu ak jafe-jafe yi ci ànd da ngay am ay employé direct. Mhm. di leen fay salaire. employé indirect yi noo leen di fayee. journalier wala ah ok ok. journalier la su ñu xëyee wàcc rek da nga leen di fay. ñële mhm. moom léeg-léeg nga waxante ni sa contrant 6 mois. 6 mhm. mois moo te nga fay leen nga defaat beneen contrat. Mhm. waaw du kii la liggéey la boo xam ne daal. métier la boo xam ne bu noobal la. Mhm. te métier la boo xam ne dañ ko war a jàpp bu baax a baax. ah mbay moo yor réew. mbay moo yore réew réew moo gis mu suqaliku. mbaye ko suqalee. waa jafe-jafe bi ngeen di am ci ndox mi maanaam ndox mi fi muy jóge mhm. ba mu yegg si fii nan la ñuy def ba irriguer tool bi ba nga xamante ni ak bëgg naa nga expliquer ma aussi goutte à bi ngeen di wax ak beneen façon wu. kii bu ndox bi goutte à goutte moo xam nga si suuf la ñuy installé euh, installation baa ngi si suuf mooy euh, tiwo yeeg yooyu su boobaa goutte à bi moom euh, dafay sànni ndox mi noonu moom si suuf doo sentir sax man bu may njëkk xam man yàgguma dugg si bare sax man ceeb laay def moo ma jógee tooli ceeb ñëw fii damay damay du ma sentir maa ngi bay fale damay xuus <laughs> fale damay xuus su ma doon su ma musaane bu ma commencé su ma ñëwee ñibbi ma ne man est-ce que maa ngi béy <laughs> ndax fale maa ngi xuus maa ngi gis ndox fii doo gis ndox ndox mi mm-hmm. dafay dafay génn di irriguer ah, ci suuf ci suuf lay jóge gis ndox ñu am nag yeneen yeneen euh, moto pompe yoo dañ koy teg mm-hmm. pour fu gën a tunde mm-hmm. ñu def ay ñu prolonger tuyau yi yóbbu ko foofu mu mun ko irriguer ah. waaye yëpp nag bara baa ngi jógee lag de Guiers Lac de Guiers la bara bi di jógee ñu toog fii léegi fii mu pax la mu gën a jege dëkk bu ñuy wax Toola. Mhm. Toola mu ngi tiim si lag bi. Mhm, ok soo demoon tey deux kilomètres rek yaa ngi si lag bi jeex. ah d' accord mbayum ceeb bi ak maraîchage bi ban moo gën a metti. maraîchage moo gën a metti. Ah. <laughs> ndax ceeb tey mun nga gérer yow kenn rek mun nga gérer vingt hectares. Mhm. fekk doo am jafe-jafe ndax moom soo ko xasee ji ba pare. ba mu sax nga traité ko sànni sa première engrais rek. di def ndox lu des mooy dindi ñax ak xool ak kii fii kii nag buur la. Mhm. bés bu nekk dangay nga ñëw di xool. bés ne tamaate bi tey su demee ba ba ba commencé jur. Mhm. foog nga koy téye nii. Mhm. di ko walbati ko nii di ko teg si kaw kii bi ndax pour mu bañ a nëb. ndax lii su laalee ndox mi rek day nëb. Ah, soo koy walbatee dafay am façon boo xam ne noonu nga koy jëlee. loolu mu damm sa loxo. Ah, soo bàyyee walbate woo mu nekk si ndox mi mu nëb. Ah, wante soo ñëwee tey si concombre deux jours yi ne trois jours da nga koy da nga soo récolte wul. mun na fa nekk mu yàqu. ok kon man mbéyu mbéy bu ma ñëwee di béy maraîchage dama ne mbéy maraîchage moom mbéyu moom buur yi mhm. doo ko da nga ko jege toujours di ko xool di ko traité di ko toppatoo lu mun si am lépp. moo ëpp coono daal moo ëpp nee nañu moo ëpp rendement ak ak mhm. ndax nee nañu cinq hectares yu ceeb. benn hectare maraîchage mun na ko mun na ko comparer. Mhm. waaye nag dafa bari coono. dafa bari coono lool. Mhm. waaw bu ñu waxee mbay boo bayee ba noppi. Mhm. ba góob récolter say fruits et légumes. récolter say ceeb euh, mu des commercialisation. surtout ceeb bi. commercialisation bi ndax dina yomb. ak nan nga gisee aussi consommation wu riz local ci ci ci marché bi. waaw ñun dañu ne wax sax tey suñu ceeb bi dañ ko labelliser. ceebu Sénégal lañ koy tudde ñu ne buñ ko localisé sax ñuy defa ne xëy na local rek la moom Sénégal yëpp ñoo ko moom kon nañ ko labellisé loon ñu ngi koy wax at yëpp nañ ko labellisé ñu nekk wax ko ceebu Sénégal ceeb tey amatul jafe-jafe par rapport bu njëkk bu njëkk da ngay béy tuuti muy des sa loxo boobu transformation bi desoon na dafay am bu dijjee am bu sew am am doo ko mun a togg mu mu mu ñor ni mu du mun a ànd nit ñi xamuñu ko woon xamuñu woon ceeb bi lan lan ban euh, ban ceeb la tey xam nañu ceeb te tey soo xamee am na variété boo soxla rek mu ngi si ceeb bi tey soo nee parfumé nga bëgg bu naturel aromatique bi am nga si ay lu mot juróomi variété soo fawee 177 328 329 yooyu yëpp aromatique la soo koy togg da ngay defe ne dañ ko parfumé fekk naturel la soo ne suñu waxoon ñoom ceeb am na ceeb boo xam ne lu moon sayal 201 dañuy waxoon suñ koy togg dafay xaw a wow xam nga Dakar ñu ne su ngoonee dafay ferñeetu ko léegi am na 210 boo xam ne dafa xaw a collé tuuti dafa xaw a rattax moom regle na problème mu ceeb boobu ñu waxoon ne dafay dafay ferñeetu ko kii si wàllu transformation dañ ko teqale nga am brisé am am entier am am am demi brisé wala sànqal fekk yëpp dafa dafa am laser yoo xam ne dañ koy dindi tànn bi bu mu set wet dañ koy poliser bu mu rattax soo koy togg su doo sentir sax. yow ceeb bi ngay togg bi xëy na doo xalaat ne fii lañ ko béyee tey demande bi dafa ëpp dafa ëpp tey offre bi oh, ndax usine usines yi transformé tey lu ñu war a transformé par par jour mm. wala par at lu ñu béy bi léegi mënu ko mënatu ko satisfaire kon lu des kay mooy nañu béy nañu aménager suuf yi ñu affecté nit ñi suuf yi jàpp euh, jàppale si intrant ñu am financement am matériel agricole ñu mën a dundal réew mi waaye ceeb ceeb tey tey jaay ko moom am ko moo jafe waaye jaay ko jafe yii nag légumes yii nag am na jafe-jafe ndax dafay ñorandoo su ñorandoo tey su fekkee amoo contrat si usine bi mun nga am jafe-jafe tamaate su ñoree mënoo ko denc kon nag ay chambre froide yoo xam ne yu jege nit ñi ndax dafa dafa am foo xam ne soo fa installé benn chambre froide nga ne soble wala nga ne nga teg ko fa fekk yow sa tool ak foofu mën na di kilomètres wala trente kilomètres doo dootoo am sawarte dafa yobbu diko ko da da ngay xol da ngay indi wat kon sa féré nga ne tey suma récolte tay sama soble def 20 km yobbu fa denc dina fay location dinaa fex mu dellu su dinaa fay transport su boba lay dootu la dootu la jaral du dik du la dikkee dara su boba da ngay perte lo ci don wut yëpp do ko am kon sambur fourage man damay wax dafa war a tas gën a jege mbéyukaay yi su boba man fi Euh, sama programme mooy installé fi benn chambre froide bu ndaw boo xam ne pour sama sama sama mbéy ma ko si def waaye pour ñëpp daal pour ñëpp mun a dencandoo seen i légumes yi mun si am lu leen jëriñ mhm. na gën a jege nit na gën a jege nit ñi ñu mun a am chambre froide yu yu doy mhm. ñu mun a nag am aménagement wax ba yëpp aménagement la gis na wax bu gën a tey indi jafe-jafe ah. mooy aménagement aménagement dafa cher cher boo xam ne yow béykat mënoo ko defar sa bopp te yow ñun aménagement ñuy def fii yooyu fekk ñuy rëdd noonu di def du yooyu aménagement yooyu béykat yi ñoo ko def da ngay ñëw rek nga am sa suuf nga taxaw nga ne rëddal fii canal defal ma fii euh, kii nu mu tuddee tey digge nga defar ko du yooyu aménagement aménagement foog mu nekk aménagement terre-terre boo xam ne dafa dafa nekk aménagement nga mun si am rendement kon ñun nguur gi lu ñu koy ñaan mooy ñu yokk aménagement bi matériel agricole ñëw na séddaleguñ séddaleguñ ko sax du yàgg ñu séddale matériel agricole lu am solo la ñu yokk matériel agricole jàppale nit ñi si financement yi bu baax a baax a baax financement euh, dafa yombul ndax soo amul garantie amu amoo kulo amoo xamoo ko ñoom xamuñu la xam nga confiance day am jigéen bi ñëw te rek jógee fële dafa sonn ñëw egg si bëgg tey ku ko financé ñu ne la ñu financement boo xam dafay cher. da nga koy da nga koy fay fu da nga koy fay lu yàggul te pare teg si intérêt boo xam ne yow jigéen bi jàngoo doo ko comprendre balaa ngay comprendre nga egg si fay ma loolu it euh, dafa laaj éduca dafa laaj garantie ak formation. formation. Hmm. pour hmm. xam nan la moom jigéen yëpp lañ ko war a def balaa ngay am accès wala di ñëw di di jël dara wala di bëgg a def dara. fekk yow def nga sa business plan boo xam ne leer na ne man lii mun naa si génn def nga defal nañ la éducation financière nañ la financement nii lay demee nii lay demee nii lay demee soo ko jëlee ni nga koy fayee ni nga koy dencee ni nga ko war a su boobaa jigéen bi su amee financement bi mu bañ a yàqu si loxo su loolu dañuy wax ne rek jigéen ñi jot nañu financement ñu mu indi jafe-jafe. la laaj. formation la laaj. Euh, ndax euh, itamit. Euh, il faut que nga xam li ngay def mm-hmm. lan moo la ciy fekk ah. ak nan la mel mm-hmm. nga mën ci génn ndax boo jotee financement te xamuloo yoon wi ba mën a liggéey doo mën a rembourser wala nga am ay difficulté dëgg la waa ci mm-hmm. wàllu ceeb bi yaakaar nga ni di ngeen ci suqaliku suqaliku boo xamante ni di nga ko ko mën a jaay bitim réew di nga am lu looy réew mi ba mën a jaay bitim réew loolu de la mooy mooy suñu yéene <laughs> loolu de mooy suñu yéene waaye ceeb ceeb ceeb moom euh, ak changement climatique bees mm. euh, ceeb bi dafa xaw a am jafe-jafe mm-hmm. soo xoolee campagne hivernale euh, rendement am dafa wàcc bu baax a baax tey campagne bi nekk nii kon saison mooy campagne bu mag te bii moo doon campagne bu ndaw bi tey dafa bal dañu xëy rek moo am changement campagne contre saison nekkaat campagne bu mag campagne hivernale nekkaat campagne bu ndaw rendement yi baissé si si nawet bi loolu moom loolee loolu techniciens yi ñoom ñoo xam nga affaire changement climatique moom affaire yu yàlla la. waaw waaw mais techniciens yi ñu ngi si pour xool suuf si lan la soxlaa ñu xoolaat calendrier cultural ah. ban engrais léegi la suuf si sonn ndax suuf suuf suuf bi sonn na suuf soo xam ne ñu ngi koy béy bu yàgg ñu naan la dix huit quarante six urée rek nañu lee leneen loo xam ne dañ ko si daf ko war fekk si mu gën a suuf si ah ñun nag am nañu yaakaar bu baax dundal réew mi surtout ñun jigéen ñi ñun dañu ne du Sénégal jigéen ñoo ko nar a dundal. loolu lañ si am yaakaar léegi nag moo tax jigéen ñi takku nañ pour am suuf nañ leen dimbali ñu am suuf takku nañ pour am matériel nañ leen dimbali ñu am matériel ak seew marché nag loolu woy la boo xam ne moom it dafa war a teer ndax euh, gis nga marché bi soo liggéeyee ba jeex ba pare boobu na ngay am jafe-jafe surtout nag euh, ceeb moom xam nga amul jafe-jafe mun nga ko denc waaye lépp luy léjum lépp luy léjum soo liggéeyee tey amoo foo ko jaayee am nga jafe-jafe loolu moom fokk ñu koy gën di transformer ñu fab tamaate bi tey transformer ko am usine yu ndaw dañ koy transformer am concombre nga transformer ko def si defar say jus def si say say def si loo xam ne rek soo ko gënee valoriser foofu ngay amee xaalis parce que ñun ñu béykat yi ñun du ñun ñoo am xaalis ki koy transformer moo la ëpp xaalis yow mi di béy moo tax transformation moo am solo la ñu gën a former nit ñi du former du former rek pour former man yooyu sax dem former nii rek former naa junne ni déedéet former bu am résultat laa wax nga formé ma gunge ma jox ma matériel boo xam ne maa ngi koy liggéey ma am marché boo xam ne maa ngi koy jaay waaw ndax euh, suñu ceeb bi bëgg nañ ko bitim réew bu baax a baax mhm. bëgg nañ ko bitim réew bu baax waaye ñun dañu comme ko yew euh, entier bi sax mun na génn ndax entier moom motal nañ ko si doon entier rek si doon Sénégal yi dañu consommer entier comme ni ñu ko commencé léegi ñoom ceeb bu sew la ñu gën a consommer waaye tey ñun entier lu ñu si am sax daanaka motal nañu loolu mun a dundal réew mi s wàllu entier mais wàllu ceeb bu sew moom loolu foofu moom foofu la foofu la des. Ah, foofu moo des waaw. Mm-hmm. waaw Korka ñu ni euh, bon yaa ngi jiite benn réseau wu femme mm-hmm. agricultrice. Mm-hmm. maanaam benn réseau wu wax nga ko sànq sax si biir wax ji. ay mbootaay mu rëy rëy. ci jigéen yi yëngu ci wàllu mbay mi. ngeen nekk euh, fukki junni ak juróom-benn. ak juróom waaw mën nga nu wax tuuti ci mbootaay moom association boobu nan lay doxee. ak mhm. yan rendement lañ ci am. waaw ñun euh, mbootaay boobu dañ si gën a gërëmaat sayet lu ko indi woon mooy dañ demoon foire ñu am fa jafe-jafe lool euh, ñàkk organisé ñu ànd ak sayet moo ñu yóbbu woon ñu ni daal suñu ñibbee nañu organiser nañu organiser wu ñun jigéen ñi ñu mën a am réseau boo xam ne foofu la ñuy waxee suñu suñu soxla. ñu fab nag chef d'entreprise daal ñu gën a bare tey si wàll bi chef d'entreprise yaa ngi si muy béykat bi muy transformateur bu ñu ko defee léegi dañu njëkk def ñu sensibiliser say def ñu jox ay oto dem fii ba Bakke si yónnee Sénégal bi yëpp sensibiliser leen lan la ñu bëgg a def surtout nag suñu activité mu gën a bare si wàllu mbéy ak transformation bu ñu defee sensibilisation ba pare ñu taxawal réseau bi réseau bi ni ñu ko dañuy def ay découpage dañu dem ñu ne Ndar. ba Bakel la ñuy def kon waaye dañ koy découper pour mun a laal membre yi si suuf ñu def euh, bureau Ndar Saint-Louis léegi département Saint-Louis dafa am bureau bureau boo xam ne moom moo ŋànk foofu lépp luy refa kooku ku ñuy wax may mën a jóg moo ko jiite ñu defaat découpage Saint-Louis ñu am ay zone ñu def ko ñu def ko ñetti ñaari zone lañ ko def zone gandon bi ak zone bu nekk côté Saint-Louis bi foofu ñu teg fa ay relais teg fa ay relais teg fa ay coordonnatrices yoo xam ne ñoom ñooy ñooy jokk ak yi pour ñu mun a jot membre yi si suuf bu ñu defee loolu bu ñu ñëwee ba Dagana ñu def benn bureau département Dagana bu ñu defee bureau département Dagana ñu jiitalu ko Soxna Mbodj mooy suñu député actuel ñu mu mu mu jiitee euh, réseau bu Dagana bi ñu def ñu def ko ñeenti découpage def def zone Richard Toll zone Jama bi def zone Ñiic def zone euh, zone kii Ronk ñu def ñeenti découpage teg fa ay relais teg fa ay coordinatrices pour ñu mun a jot membre yooyu bu ñu demee euh, fële nu mu tuddee ti Podor ñu def ko moom it découpage juróomi découpage ndax ir amul fil bi moo tax ñu juróomi découpage teg fa relais yi teg fa teg fa coordinatrices yi Adama Gaye jiite ko ñu dem Matam teg ku ñu wax ci la watara moom it ñu def ko juróomi découpage laal côté Ferlo bi laal côté Dandemayo laal côté euh, Godron bi ñu def ko juróomi découpage teg fa ay relais teg fa ay coordinatrice bu ñu demee Bakelé ñu def ko juróom ñeenti découpage teg fa ku ñuy wax Alimata Alimata Diallo moom it ñu def fa relais yi def fa def fa coordinatrice yi dajale loolu na ñu def ko bureau national man ma nekk présidente bureau national ñu teg fa conseil d' administration indiwaat présidente yi nekkoon si suuf yëpp ñu bokk conseil d' administration ñu bokk bureau bi. foofu suñu fa nasee ñu mun ko wàccale si département yi mun ko indi si coordinatrice yi mun ko indi si relais moo tax suñu amee tey formation mu ñu def noonu la ñu toogee conseil d'administration ñu séddale ko lu ñu xalaat rek mooy ñu gën a nekk si suuf dañu ne ñun ñoo nga xam ne sax xam nañu dara nañu ñooñu nañu avancé tuuti waaye nañu xëcc koo xam ne dafa tëddoon mu jóg toog koo xam ne dafa toogoon ñu jàppale ko mu taxaw ku taxawoon na daw loolu mooy suñu objectif si réseau

ceeb boo xam ne foofu la ñu foofu nga koy jàngee ba pare balaa ngay dem sa tool muy semence ñu defoon si juróomi tool yoo xam ne foofu la ñu doon fab bi jigéen ñi di leen yóbbu ñuy jàng si biir jigéen nu ñuy jàngee ñu multiplier ko tey juróomi téeméeri jigéen ñooy def école ku mel ne ñoom pont gendarme ci leen ak ronxoog noonu lañ ko décomposé mais ñu ngi ko essayé bi ñu ngi ko def rek Dagana ndax moo gënoon bu jege ñun nañ ko def Dagana suñu paree ñu yóbbuwaat ko ba yeneen zones ñu dajeeg partenaire bu baax nag ONIFAM moo ñu jàppale bu baax a baax si réseau bi accès à la marché bu ñu accès bu ñu wax bi jàppale nañu si woon jox ñu xaalis bu bari ñu def ay bitigu témoin Dakar pour nit ñi xam ceeb bi jàppale nañu ñu ñu béy béyoon nañ fi lu mot ay ay deux cent trois cent cinquante hectare yoo xam ne UNIFAM moo ñu jàppaloon réseau bi pour ñu béy ko formation bu may wax bi UNIFAM moo ñu jàppale ñu def formation euh, fan yi rek am nañu projet bu ñu wax 3R 3R bi dafa dafa gën a jàppale jigéen ndax coono jigéen la bëgg a dindi sooy jigéen bi mu mu dem di tax ñi mat di ko di ko yenu jigéen bi bu mu dem di togg euh, ngay am saraax ak yooyu ñu ne loolu yëpp ñu xool nañu ko réglé nañu fexe jigéen bi wér nañu fexe jigéen bi am machine boo xam ne bu ko walal bu ko bu ko arawa ñu am si na programme bu am sol sol def nañu 400 millions yoo xam ne diggante faju la rek ak jënd fourne fourne dañuy jënd juróom-ñaari junni fourne séddale ko jigéen mooy fourne jàmbaar yu mag yooyu boo xam ne fourne bu ne mu ngi doon jar ay douze mille ñu joxe ko jigéen bu ne deux mille francs ñu tas ko si jigéen yi jox leen ñu xam def case du potager nañ ko defaraat pour xale yi suñu jigéen yi suñu di liggéey seen yi ñu am fu ñu teg seen doom yi defar nañu lu mot ñaar fukk ak juróom case du tout petit ñu defaraat ko delloo ko population bi leen ay bans école yi jëndal leen ay matériel fexe nañ leen ñu ne si wàllu semi bi nañu def convention ak ñoom ñu mën a fex ba jigéen ñi faju jigéen bu doon faju si seen bi yaa ngi doon fay juróom-ñaari téeméer état bi fayal la lu des li ñun ñu ne nañu fexe mu gën a yomb ñun képp ku bokk Refante réseau de femmes agricultrices du Nord ñetti téeméer ngay def nga faju si at am nañu convention boo xam ne ñaari at lañ ko teg te teg jël nañ si lu mot juróom-ñaari junne euh, kii membre mm-hmm. pour ñoom ñoom bokk nañu def commencé nañu faj euh, fexe nañu machine wàllu yi jox nañ ko jigéen may leen ko. Mhm. pare ay dëkk lañu ay commune lañu tànn. Mhm. dañu tànn fukki commune ak ñett. Mhm. yoo xam ne ñoo ñoo doon suñu essai jox nañ leen ay machine wol. jox nañ leen ay machine yoo xam ne dafay wowal tamaate bi. jox nañ leen ay ay jumtukaay yoo xam ne daal dafay gën a jege jigéen formé nañu ay xale jigéen si wàllu tablette yi GPF yi ndax am ay données yoo xam ne mooy suivre suñu tool yi ONIFAM mm-hmm. moo ñu ko jox mm-hmm. ànd ak SAED ñoom ñu defal formation ak waaye université bu Saint-Louis loolee pour tool yi ñun nag fexe nañ ñu ne loo bëgg mu yàgg da nga si sóoraale xale waaw def nañu def nañu euh, formé nañu suñu xale yi xëcca leen tey am na juróom euh, am na ñeenti téeméeri xale yoo xam ne mm-hmm. ñooñu lañ njëkk ne nañ leen forme ñu taxawal leen réseau yi comme ni ñu taxalee Refane ñu taxalee noonu ji xale yi dem si département yi di ko di ko former di ñëw bi egg si kaw mu nekk réseau de jeunes filles de de de Refane ñoom ñooy suñu relais ñu former leen di ànd ak ñoom ba fexe ba ñu xam ba ñu xam lu ñuy def ëllëg si biir ñu bañ a ñu bañ am ñu bañ am jafe-jafe loolu it fexe nañu ba def nañ ko. Euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënoo ko wax tey rek. yëpp waaye bi moom li ko fi teg mm-hmm. mooy gën a jàppale jigéen surtout nag jigéen yoo xam ne ñoo gën nekk si suuf ndax ñooñu foog ñu dépousser leen génne leen. Mhm. ñu mën a mën a jigéen yëpp tolloo. ñu mën a mën a tolloo waaw loolu moom dina am solo waa Korka dégg naa ni ci sa wàllum njàngub école. Mhm. yaa ngi bàyyee CM2. Mhm. da te dafa mel na da joxe ay cours. ci université Gaston Berger de Saint-Louis. Oh, est-ce que loolu am na. <laughs> sant yàlla rek xam nga loolu doon la man dama am na loo xam ne su yàlla defalee doon la hmm. ndax euh, xam nga. Euh, sa jàng boobu lu ba yàq sama jàng nag mooy bëgg bëggoon def business rek hmm. ak sama maam mi ne ma comme que dama bëgg bu ma bëggee génne école dama ñëw rek ne dañ ma dóor def naa nga sàmm ma tëddal fii toog man alhamdulilah <laughs> waaye teewul tey dama si sant yàlla ay panel yu bari dañ ma si invité hmm. may def ay panel te dama ko wax sax français. dama koy tekki suñu langue national université Gaston da ma fay dañu may invité université bu bu bu bu Dakar dañu fay invité euh, am na ministère yu bare suñuy def seeni panel dañu may invité ma ñëw def ma nekk panéliste loolu nag don la boo xam ne yàlla moo ko may ma sant si yàlla bu baax ndax nit ku nekk loo gëm rek yàlla fekk moo tax dama wax ne xale yi du affaire u njàng rek affaire gëm-gëm ah, la soo gëmee dara jàpp ko te yàlla fekk na si man su toogee di toogaale borom mas de un mas de deux mm-hmm. borom licence yi mm-hmm. may waxtaanee damay nekk di ree <laughs> man leen nag gam ngëm la ni dafay gëm dara nga gëm sa bopp <laughs> nga xam ak expérience nag dafa am solo mm-hmm. expérience dafa am solo si nit ndax man tey mun naa werante ak ingénieur agronome ñu ñëw si tool tey ñu werante te loolu xanaa yàgg si moo tax nga am ko waaye fekkoon njàng rek la ñoom ñoo koy def waaye loolu moom sant naa si yàlla bu baax a baax a baax. waaw loolu moom mu ngi am soxna Korka mm. euh, dafa mel ne da am benn label bu ñu wax. Mm. Korka Rice. Mm-hmm. Euh, boobu nan label Korka Rice bi xam nga dañu liggéeyal ay américain dañu am ay naataan bay bu mu fi ñëwee ak Isaay de bu ñu ñëwee ñoom ñuy jàppale ba léegi sax ñu ngi liggéeyal ak dooleen euh, dañu ñëw bu ñu bu ñu gisee si ceeb bi ak nu ma ko commencé. fu ma jóge woon bi egsi fii ñu ne ma yow korka raïs lañ la war a wax mm. waaw yow daal korka raïs lañ yow moom fokk raïs dugg sa sa tur rek <laughs> ma ne ko bay lañ wax korka ceeb ñu ne déedéet fokk moo ko raïs ndax langue euh, langue anglais bi moo gën a tas si àddina bi moo tax man sama label tey korka raïs la ñu gën ma ñu gën a ñu bare korka raïs lañ ma xamee moo tax su ma gisee tey ma toog tey si maraîchage dina leen jaaxal <laughs> <laughs> dina leen jaaxal waaw euh, sama secret mooy am engagement rek ak gëm man su ma engagé woo di def dara kenn mënu ma si découragé xam nga tey soo bëggee egg fenn rek suñ lay découragé doo dem soo yéegee si garab di dem ba si kaw am lu war da nga naa wàccaat for naa dellu kañ ngay egg foofu man sama secret mooy dama gëm lu may def rek te dama gëmeet li may def mun naa si dund mun naa si dund lool moom bu ma ko gëmee rek yàlla fekk si ma si wax dëgg yàlla maa ngi si sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. sant partenaire yi waaye mhm. soxna koor ka mbay mi tey mhm. dafa dafa progressé bu baax a baax mhm. ndax bu ñuy wax mbay tey il faut dafay ànd ak technologie dafay ànd ak technologie donc euh, lan lan nga lan nga gisee loolu dafay ànd ak ay euh, internet ay drone. ay drone. waaw. Mm-hmm. lépp lay ànd. <laughs> lépp ay GPS. ay ay yëpp lool lay ànd <laughs> waaw. yooyu moom loolu. loolu kay dama si gën a kontaan rek ndax dama ne xale yi tey am nañu sens bu baax a baax a baax ñun bu ñu commencé amoo amoo amoo benn xam-xam boo commencé sa bëgg-bëgg rek nga commencé dem dugg si loo xam ne amoo si benn xam-xam tey ñoom am nañu formation am nga drone boo xam ne mun na la filmer sa tool yëpp. am nga GPF boo xam ne mun na la surveiller sa tool fekk yow yaa ngi sa kër sax tëdd am nga am nga am nga daal lu bare yoo xam ne tey dafa lu bees la xarañ mbéy euh, bu bees la boo xam ne mun na la jàppale mm-hmm. kon ñooñu am nañu sens bu baax ñun nag tey bu ñu ñëwee xëy na tasewuñu woon ak génération boobu mm-hmm. waaye fexe nañu rek ñun tey suñu GPF am nañ ko suñu tool toogee suñu tool mun nañu mun nañu manipuler suñu GPF fexe nañu dodoon yi ñu fa bàyyi uh-huh. am nañu ay dodoon dodoon yi uh, xale yu jigéen nañu formé uh-huh. ñu formé leen pour ñu fab dodoon yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy taal uh-huh. fexe nañu même ñun suñu ordinateur suñu ordinateur ñoo koy manipuler suñu bopp ndax dañuy duggal suñuy données du xool ñooy xoolal suñu bopp suñuy meel ñooy xoolal suñu bopp yooyu yëpp loolu yëpp ma gis ne avancement la boo xam ne tey man am na benn voyage bu ma dem boobu yàgg na ñu soxla woon sama photo pour am photo bi dañu fay dañu fay euh, oto ma yóbbu noo ko Dakar <laughs> man loolu laay xalaat bi léegi ah. léegi man su ma bëggoon su may voyagé tey dañu war a yónneel sa photo man may toog di xalaat man man daal jaaxle eh, boobu dañu fay oto mu yóbbu ko ba dakaar tey da ngay euh, yónneel sa photo da nga yónnee tey sa ah. njaay mën nga ko dugal si biir si biir internet bi nga jaay ko mën nga jaay fekk béye ko kon kay tey réew mi sant avancement am na bu baax a baax a baax a baax am na avancement baax te même jigéen ñi fu ñu nekkoon ak léegi du benn am na avancement si jigéen ñi dañu xam nga jigéen ñi soo ne cinquante deux pour cent mhm. wax dëgg yàlla avancement am dafa du yombee noonu mais même jigéen mi am na am na avancement bu njëkk dañuy wax ne benn conseiller si dëkk uh-huh. loolu la ñuy wax benn soo nga dem commune euh, commune nga fekk fa benn conseiller nga ñëw ñu ne benn machine machine lañ la may machine pompe dëkk jigéen yëpp ñoo ko moom benn machine wala jigéen yëpp loolu amatul te tey xëy na jegeegul ñu ko bëggee ba léegi mais xam na jege daa gis groupement sax ñu may ko benn benn benn machine léeg-léeg sax gis sax benn individuel boo xam ne ñu fab ñu jox ko ko ndax loolu mooy tax kooku puus dem ñelee ñu mun leen puus ñu ndax loolu moom loo am solo la waaye nag euh, nouvelle technologie bi moom boobu lu am solo la si wàllu mbéy waaw am na solo lool si mbéy mi. kon lan ngay dénk. Mhm. Euh, yaakaar naa ne formé nga ay jeunes yu bëri. Mhm. d'après samay dégg-dégg formé ay jeunes yu bëri ak ci wàllu mbay mi. Mhm. lan ngay dénk ñooñu ak ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañu dugg ci mbay mi tey te xamuñu fu ñuy jaar. man de lu ma leen di dénk rek mooy amul ragal mbéy métier bu noobal la noobal la boo xam ne moom ngay jox benn mu jox la fukk te mbéy rek tey moom mun a moo mun a moo mun a régler situation yi man dama lay wax ne xale yi. suñu paree njàng jàng bi am na solo ndax jàng moom dañu ne dafay dafay daf daf lay jëriñ daf su baree daf lay jëriñ su tuutee daf lay jëriñ kon jàng bi kenn mënu ko béy gannaaw nag bu ñu jàngee ba pare bu ñu xel seen xel bu nekk si tukki parce que démb rek laa jógee fa man man affaire tukki yooyu nu ma koy gisee sax ñu koy defee foofu sooko ko fi defoon fi da nga kii te foofu ñun daal fii lépp mun nga ko am fii soo ko gëmee nag ñu jàppale la ñu la dimbale la fekk nga am suuf xam nga jigéen euh, jigéen xale yi ñoo am ñoo ñoo yem jafe-jafe problème suuf la ñuy am. waa ci foofu dama fiy dellu si ndax jigéen yi est-ce que mm. ñoom euh, suuf si ak problème yi ci nekk. Mm-hmm. est-ce que ñi ci jot a am suuf. ñu ngi mm. leen koy irriguer ba mu baax ba mu tegu fu mu war a tegu ba nga xam ne suñu ñëwee rek utiliser day yomb. déedéet ñoom suñu la mayee suuf duñ la ko irriguer. Mm. yow soo ñu xasee may la suuf suuf lañ la may suuf rek boo xam ne kenn defaragu ko yow yaay wuti lu ko defal mooy aménagement bu may wax. yow yaay wuti financement yow lu des yow yaa koy def loolu foofu mooy jafe-jafe bi léegi nag jigéen ñi sax seen dañu ne ñoom nañu am suuf su amee suuf nañ joga nag taxaw nag nga wuti aménagement su boobaa état foog mu ñëw uh-huh. nga dem wuti financement état foog mu ñëw marché accès au marché foog foog ñu ñu ñu régulariser marché ba nga xam ne loo def nga mun ko jaay foofu jafe-jafe la xale yi nag ak jigéen ak jigéen ñoo yem foofu jafe-jafe xale yi bu ñuy ñëw bëgg a suuf ak jigéen ñi bi ñoo bëgg suuf dafa fekk suuf xamoo dafa jeex xaw nu mu demee suuf moom du yokk waaye nit ñi moom dañuy yokk Ah. macha allah soxna ah. Korka ñu ngi lay sant di la gërëm. Ah. di la jaajëfal te di la ñaanal yàlla mm-hmm. rek gudd fan gu ànd ak wér. ca kaw ca kanam rek. amiin courage incha allah. ñi ci ñi ci bëgg yëngu. aussi mm-hmm. ak ñi yekk secteur bu nekk daal comme ni nga ko waxee. léegi rek mm-hmm. ngëm-ngëm rek la. lu mu munti demee boo ko gëmul doo sori. doo sori nga gëm sa bopp. wallaahi kon nag soxna Korka na jërëjëf <laughs> ñoo gën a kontaan. <laughs> ñoo kontaan maa ngi gërëm nag euh, télé bi uh-huh. di gërëm nag sama càmmiñ bi bu baax baax daaw da gise mm-hmm. yal na la yàlla jàppale ndax ñëw nag déplacé ba fii fekk ma ba fii fii dafa sore de mm-hmm. ñu ko xamoo da gis ne to waaye fii dafa sore ñëw si naaj bi tey woor mm-hmm. fekk ñu fii ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na nga si am avancement bu baax yow ak sa sa sa yow ak sa équipe yëpp yal na leen yàlla jàppale gise jërëjëf jërëjëf kon nag ñu ngi sant di caméra yeeg monteurs yeeg techniciens yëpp ñu leen di jaajëfal. ci hmm. beneen yoon ak beneen euh, émission incha allah. merci beaucoup <laughs>